sëriñ moot Ndiaye mi junni maraxib la daa jàng ci benn jotaay moo tax mu daan wax naan am na foo xamante ne bu mu fa tolloo ci xaside gi lu ma laaj yàlla mu jox ma ko kii ne woon na man Mor Ndiaye ak sëriñ Fallou Mbacké ak sëriñ Abdou Sakkour ñoo daa bokk benn lal fa Badar kii la Cheikh Ibra waxoon ni ko tomb nga del gi fa Gébbu Fall sëriñ Mor Ndiaye tomb del mi Cheikh Ibra Fall ko wax naan Mor Ndiaye maa jur dama laa denkaani woon rek moo tax fu mu toog da daan wax ne Cheikh ma bind